Aïcha Mansour Fall ñu delluwaat ca biir géew ba gannaaw ba ñu jëlee ambiance tuuti Aïcha ay waay day jeex de takk na ko ma nga koy buddi door na ko ci suuf def na deux appui xale baa ngay flexionné jógaat na ey léegi kenn mosu koo gis war ndombo penalty la ci bëre wax naa la ko eh jeex na de war na ko ndombo dañ ko baa ngi koy ruur jël na tànk ba jël na tànk ba daan na ko waaw waaw bonkal xajul ci benn tànk attention eh Lamine attention eh. ay waay doole doxul jàmm doole doxul jàmm ndeysaan Brise ba garaaw kooku Dakar la mbër plus étudiant mbër plus étudiant intellectuel la intellectuel la xam-xam bi da ci man exemple laa koy wone xale yi ah, waaw parce que daa si njàng gi nekk si oh. Lamine war na ba penalty la attention ay Mbaye Délégué daan na ko Mbaye Délégué daan na Ousmane Diop Mbaye Délégué daan na Ousmane jàpp na ca loxo ba mu ngi rasu fa mu jàpp baax na na ko ay waay waay waay Waly daan na ko oh Waly dem na final Waly dem attention oh waay jël na tànk ba daan na ko yàqamti ma kon aw ma droit erreur. tey lan moo la andi ndàngaan. non xam nga rek bëgg a satisfaire samay fans rek ak bëgg a compétition jël drapeau bi yóbbu ko mar waaw incha allah. gërëm bi seen grand Mbagnick. Grand Mbagnick sëñ cey ndangaan sàmb tey waaye nee naa la tey foo sànni mbattu mu tak public bi ñëw nan wuyu si nan gan production attention ooy oo biram bisin daan na grand mbañik biram biram bisin daan na grand mbañik cey biram bisin waay dafa jël baax maa ngi sant yàlla. tey nga tagg sa première journée Ndangane Samb euh, ban jàngat nañu ci mën a defal. ah jàngat bi xanaa bëgg rek kontaan parce que woote nit ñi wuyu la yombul waaw ah, loolu moom maa ngi sant yàlla bu baax a baax parce que woote moom nit ñi ñëw wuyu si la du lu maa ngi sant bu baax a baax. doo préparé première journée bi. bon première journée bi en dama ne dama ne li ko li ko fondé fondement bi moo tax sa mu mel nii mooy lan. ni ma ko waxee sànq mooy lamb ji lu ma ci jëlee muy bénéfice damay xool ñi nga xam ne seen loxo seen loxo jotul ginnaaw ma jox leen ko. bon parce que defuñ yàlla dara xëy na yàlla seddale moo demee noonu joxu defuñ yàlla dara gënuñ leen jëm yàlla gënuñ leen nangu liggéey mais nag yàlla mooy seddale noonu. ma ne comme sama man aussi sama loxo jotul sama ginnaaw ma organiser loo xam ne bu ma ci jëlee dara ma jël bénéfice bi mun ko bokk ak ñoom waaw. loolu inspiration boobu fan am visa xam nañ ne man xëy na noonu laa mel lu ma yor dama koy jéem a bokk ak ñi parce fi am am saxul mën mën saxul fi kenn mënut kenn amut parce que nit noo mën a aduna am na koo tane noo loo mën a am ci aduna am na ku la ëppale bu dee ay jullit lañ li ñu war mooy ñu seddoo li ñu am buñ ko seddoo rek doon du am waaw. tey journée bi lan nga ci mën a wax am nga ci am nga ci satisfaction totale. non man lépp lu ma yàlla defal ci aduna damay am satisfaction bu ma teggoon gisuma nag damay julli ne yàlla alhamdulilah parce que yàlla mooy dogal nit moom woote nit ñi wuy la yombut mais nag gën naa ci kontaan parce que nit ñi woo ñëw nañ mais bu ñu ñëwul woon yàlla xam na def dara damay sant yàlla bu baax a mi ngi préparé An à la base informaticien la bu may sama temps mayee ma def yeneen journée dinaa ko def dans bi but lu ma ci jëlee ma jàppale nit ñi waaw. man lan mooy sa kàddu gu mujj. di gërëm waa Leewtoo di gërëm Ndangaan Samb di gërëm sama papa jàpp naa ci. gërëm sama yaay ñaanal na ma bu baax a baax pour mi antu donc maa ngi gërëm képp kuy seereer u foog seereer maxo simna nuun gidma nuun parce que xoyit jaɓel yooɓeero to nu mbi'an a xamu teen mais gidma nuun a baax a baax sant a nuun waaw te di ñaan aussi feebar bi nekk ci réew mi muy corona yàlla dimbale ñu génne ko ci réew mi ñuy ñaan yàlla mu yërëm ñu ndax ay bakkaar kat nañu mu teggil ñu feebar ji jërëjëf jërëjëf gan jërëjëf jërëjëf merci beaucoup